mais imam bi nga gisee euh, yooyu image d'abord euh, lan lan nga ci njëkk a am comme impression bon euh, quelque part bêtement yooyu fa xew yëpp yeneen sax yu gën a ñàng mënoon na fa xew parce que tension bi moo toll foofu loolu moo tax ñuy wax toujours fitna bu xasee ba yeewu kenn du xam fu muy yem buntu fitna aussi buñ ko ubbee kenn du xam boulevard bi fan lay fan lay jeexee. donc lu ne mënoon na fa xew bis boobu parce que voilà ay militants Ousmane Sonko euh, mënoon na ñëw jàmmarloo ak force de l'ordre yi mu metti lool ba ay bakkan rot ci niñ ko fi gisee ci yeneen xew xew politique wala diine euh, comme tamit Ousmane Sonko mënoon na jàll noonu am ñoo xam ne daal euh, def jëf ju ñaaw comme loolu ñuy wax tirer bal wala def yeneen ak yeneen wala indi ay xeex. Mmh. nit ñi di xeex fii fekk ñoom leneen lañ bëgg. nangam donc yëpp mën na ci nekk léegi nag quelque part man je suis euh, très légaliste ci yu bëree bëri euh, damay bàyyee institution bi nga xam ni moo ko war a jël en charge comme tamit Ousmane Sonko bu waree dem jaar ci yoon bi euh, force de l'ordre yi léegi force de sécurité défense yi ñoo war a vraiment saytu yoon bi toppatoo yoon bi ba mu egg ak jàmm def la muy def génn dellu këram ak jàmm ñooñu tamit il faut ñu nangul leen seen liggéey ñu def ko parce que loolu su amul aussi Euh, jàmm du am fenn parce que tey fekkente kuñ fi convoqué euh, ñu ne la demal débrouille toi rawatina bu fekkee da nga am mbooloo euh, mën na indi ay jafe-jafe donc ñoom tam nañuy liggéey ñoom ñoo koy xam léegi ah. ñu as amul liberté aussi tànn yoon bu mu war a jaar moom. non yaakaaruma ko loolu nag moom duma ma ci du ma ci d'accord parce que tànn fu la neex loolu day dépendre tam ci circonstances yi ni mu demee ak niveau de de de d'insécurité yi mën a am ak yooyu Ousmane Sonko comme dafa jox rendez-vous. Euh, askan yëpp ne leen ñëw leen kon nit ñi dañ fay bari fu nit ñi bari nag lu ne mën na faa xew parce que li tax ma wax loolu mooy que tey jii tamit su fekkee force de l'ordre yi euh, admettons ñu bàyyi noonu rek moom mu jël fu ko neex dem bu dara xewee tamit kon di nga gis ni ñëwaat analyse daal ni ñoom war nañ xam ne Ousmane Sonko ak mbooloom buy dem foofu war nañ ko assurer protection et cetera donc man je pense que daal li am solo mooy Ousmane Sonko war a mën a dem en sécurité dem wuyu ji ñibbiwaat en sécurité loolu nag liggéey la. compétence technique la yoo xam ne man aw ma ko mais dama koy nangul ñi nga xam ne ñoo koy liggéey ñu ne ko boo jaaree nii pour ñun moo gën parce que li am solo mooy quand même egg ci euh, bërëb ba donc euh, man noonu laa ko gisee foofu léegi na ñoom li ñu expliqué euh, dañ ko wax mu génn ci otoom parce que parce que dafa amul risque am na menace buy peser si moom moo tax ñu extirpé ko ci oto bi daal di ko yóbbu. Ah, loolu tam mën na am ñoom seen liggéey seen renseignement xam nga ñoom mën nañu am ay caméra mën nañu am ay drone. mais la ma leen tere dem ci menace boobu nga xamante ni moom la ñuy wax attaquer menace bi directement. waaw éliminer ko. Euh, waaw loolu tam question la euh, xam naa peut-être du ma ci mën a tontu mais <laughs> waaw xam naa ñiy toppatoo sécurité bu ngeen leen laajee. Eh. Euh, ñoom dinañ wax est-ce que yombee na noonu nga dem attaquer loolu ñoom ñoo ko waxee noonu alaakulli xaal mais man li ma ci gën a amal solo mooy que ni. dès l'instant que ñëw nañu wax Ousmane Sonko génnal man damay gis ne dafa war a nangu loolu parce que benn institution la boo xam ne loolu mooy liggéeyam bu ko defee lépp luy xew après seen responsabilité directe lay nekk mais soo bañee leneen lu mën a xew aussi euh, muy vraie menace wala fausse menace euh, doo ko mën a imputer force de l'ordre yi parce que ñoom bu ñu la waxee defeel nii nga bañ a def noonu ñoom dañ ci génnee seen responsabilité par contre soo ko defee après lu ci mën a xew ñoom seen responsabilité dañ ko mën a euh, mesurer. mais ci même journée bi gis nañu euh, Ousmane Sonko waroon dem euh, fële ci conférence bu mu waroon présider alors poste de l'ordre yooyu daal di ko tere mu génn koñam wàcc ci oto bi ñu gazé ko muy dox ñu gazé ko ba finalement mujjul def boobu point de loolu de gisuma fenn fu mu tegu gisuma benn yoon lu war a mën a may force de l'ordre yi ñuy tere un citoyen simple rawatina un homme politique mu jóge ci événement bu mel noonu que mu war a mën a génn dem def benn conférence de presse am waruñ koo ko tere loolu gisum benn yoon fuñ ko teg waaw te yu mel noonu nag tamit day gën di indi tension day gën a indi fitna. parce que si jamono jooju Mame Mbaye Niang mu ngi def conférence de presse si jamono jooju. en plus en plus donc loolu scandale la scandale jaaduwul fenn li nga mën a wax rek mooy Ousmane Sonko dafa génn yore ay ngànnaay wala dara ñu ne waaw nangam naa mais. en tant que dafa génn pour dem defi conférence de presse kooku droit la boo xam ni dara waru ko remettre en cause rawatina nag en plus mu am benn adversaire politique am. buy dérouler même moment di def au même moment. loolu jaaduwul donc euh, force de défense et de sécurité yi comme li ma wax sànq ci magistrat yi même ñoom am na niveau de responsabilité boo xam ne ñoo ko war a jëlal seen bopp ci terrain bi daal ne lii gisuñu fi lu jar ñu ko fiy gazé wala di ko tere mu dem léegi Euh, ministre de l' intérieur bien sur day jox jokkoo président de la république ci li muy def yëpp moom tamit na def attention bu baax parce que lépp loo xam ne tey mi ngi koy teg parce que rek su nekk nii moom mooy commander les forces de l'ordre ça peut se retourner contre lui parce que bu nit ñi demee ba jóg ba mer euh, mënoo xeex peuple histoire politique ngi fi gis nañu dëkk yëpp nii ñi fi amoon doole bu dul jeex du xaaj bu peuple bi jógee le Shah d'Iran bi peuple bi jógee Shah lu mu yorul woon ci armée moo tax su ma déggee sax ñu naan ay président jënd na ay armes yu bees léegi recruté ma ne yooyu yëpp euh, taxul nit mën a jàmmarloo peuple. peuple bu déterminé. voilà donc nañ jox ku nekk ak ak yelleefam waaw vraiment cible benn benn benn adversaire politique euh, di ko di ko tere yenn yi te loolu nga mayee ko à côté loolu moom c'est un scandale. seetlu nañu aussi dañuy assiégé à chaque fois buy procès di waaj jot ci son ko dañuy euh, bunkeriser assiéger koñ bi ba kenn du dugg kenn du génn wala sooy génn wala du dugg day fekk nga bokk ci koñ bi. waaw yooyu yëpp daal waaw yooyu yëpp daal lu jara a lu jar a seetaat la en tout cas euh, objectif force de l'ordre et de sécurité daal force de sécurité défense objectif de sécurité défense rek la mën a doon. Hmm. il faut pas que ñu dugal ci beneen objectif. juste pour gêner benn adversaire politique donc loolu te loolu nit ñi duñ ko seetaan moo tax jarta def parce que boo ko defee benn yoon nit ñi bàyyi ñaar nit ñi bàyyi ñetteel ba nit ñi duñ bàyyi euh, egg ci ñetteel ba jaru ko parce que ñetteel ba ay bakkan dana rot ministre bi nga xam ne mooy def loolu bu benn bakkan rotee moom dana jóge foofu parce que président dina ko def bug émissaire au moins ne ko ah bon yaa ko def kon génn fi nga demaat toog sa kër comme ñëpp te fekk bakkan rot na parce que yaa ngi doon bëgg servir kan benn exécutif benn président waxam day jàll alors que sa institution yow en tant que sécurité c' une institution aussi ni ma ko waxee ci euh, justice qui mm-hmm. exerce euh, n' est ce pas euh, des objectifs de sécurité et de défense au nom du peuple sénégalais et pas au nom de d'un président d'un président ok déjà wax nga ko tension yi moo taxoon mënoon nañ gis ne c' était prévisible mais aussi le procès jeexul dañ ko war a amal Euh, le 16 prochain euh, du mois de mars alors ñu gis ne euh, y a eu les yoo xam ne dafa xaw a tendu parce que déjà waa Pastef bu ñuy defee seen conférence de presse dañ ne c'est fini lu fi am ñoom ñu def ko seen leader dootul amati pendant ce de l'autre côté beneen boor bi ñu naan force reste à la loi alors entre ñooñu kii di menacer fii kii di danxaafu fii danxaafu fii alors est-ce que mënuñu jëm également ci mars bu boo xamante ni mën nañ quand même euh, dund loo xamante ni kenn bëggu ko woon. 16 mooy kii dañ convoqué waat. Euh, mooy mooy le renvoi du procès. waaw il faut ñu def euh, attention man je pense que déjà dànqaafu beeg yooyu moom yëfu politique moom toujours day ànd ak yooyu. ok c'est différent. waaw c'est de la réalité. waaw ok. maintenant. je pense que j'appelle les gens à la responsabilité. dégg nga de part et d'autre et déjà par exemple les forces de défense euh, et de sécurité euh, nañ def seen liggéey de façon professionnelle et de façon neutre uh-huh. et donc j'interpelle là-bas Antoine Diome le ministre euh, avec tout le respect dû mu xam ne il exerce actuellement son ministère au nom du peuple sénégalais même si c'est le président qui nomme au poste civil et militaire il nomme mais ta mission c'est une mission républicaine. Mission de service public. De okay. service public. Okay. Euh, donc respecter les citoyens euh, être neutre euh, beneen bi aussi mooy que def une communication aussi euh, daf ci baax mooy que par exemple pourquoi pas euh, force de l'ordre yi et cetera dinañ communiquer wane ni par exemple. Euh, trajet tel lañ bëgg pour des raisons de sécurité et cetera et cetera wala suñu action nii ak nii la tuddee et cetera. lii woo lii woo voilà. loolu yëpp expliqué lu tax ñu def loolu. voilà tam c'est important alors que ba xam nga en Afrique moom en général li euh, ñuy wax euh, ñooñu du ñu wax dara alors que dañoo war a wax nañ wax lu leer teg ko ci yoon. beneen bi aussi mooy que du côté aussi de l'opposition des pas seulement de Ousmane Sonko toute l'opposition ñoom ñëpp gis nañ ni ils sont menacés et c'est ñu def Sonko mën nañ ko def keneen lu ñu def keneen. Sénégal tamit yàgg nañ fi njatt ay opposants dans n'importe quelle circonstance euh, parce que rek opposant lañ donc je peux comprendre aussi que ñoom ñu gis ne euh, ñu wanewul ne pare nañ ñoom tam pour défendre seen bopp euh, mën nañ leen faagaagal mais je les appelle aussi quand même malgré ça à la à la tempérance. ils ont compris parce que Ousmane Sonko ci fële ci Guédiawaye ci meeting pur bi daf ne si Macky Sall touche à un seul des leaders de Yewwi Askan Wi le peuple va le déloger au palais. Ah, mais waaw loolu kay mën na cee nekk euh, donte woon du man maay jël seen expression di ko askanal sama bopp <laughs> dama leen koy bàyyee mais euh, meetingu pur bi. xam nga bëri woon na nit. bien je crois que problème amu fa. non non. montre que tu vois ni. amul kas amul yàq dara tuuru fa. ça montre que kon euh, nit ñi lu ñu bari bari bari lu ñu mer mer mer su suñu leen bàyyi ak seen àq yelleef encadré leen ñu wax li ñuy wax dem seen yoon kon lu mel noonu tamit je pense que à Mbacké suñ ko defoon. kon tamit yooyu du fa am. kon enseignement lañ ci war a tirer. enseignement lañ ci war a moo tax j'appelle les forces de l'ordre le ministre de l'intérieur justement à être neutre et à protéger encadrer les manifestations qui sont des droits. est-ce que tamit duñu wax ak autorités administratives yi nga xam ne ñooy jox ordre yi di force de défense. ñoom tam comme magistrat yi li ma wax ci magistrat yi laay wax si ñoom. Hmm. mooy que ni ils exercent euh, des euh, positions des missions républicaines le gouverneur et le préfet. ils représentent l'État. Même s'ils sont nommés par le président, euh, mais ils représentent l'État. Le gouverneur représente l'État et le préfet, même le chef de quartier et le chef de village représentent l'État. Donc, dañu war a tëddee njaaxanaay hmm. euh, comme ni ma ko waxee bon tension bu amee nag du ñàkk moom ministre de l'intérieur wala ne la nangam nangam euh, président ci boppam wala nangam nangam mais nga rappeler ko avec courage et respect que ni effectivement xam naa sama liggéey et je appliquer euh, mes missions li ma soxla nag ci moyens yu ma état bi war a jox yéen foofu laa leen di xaar. surtout yow mi nekk gouverneur préfet nga ne jox leen ma les moyens yi ma soxla pour que ñi activité bi ñu bëgg def ñu def ko euh, ci yoon. ok euh, déjà comme déjà comme li nga wax rek am na benn tey meeting bu waa Pastef naroon def def fële ci Kébémer préfet bi lu mu wax daf ne awma force de l'ordre yu doy mais aussi damay ragal mu am trouble à l'ordre public comme. gis nga loolu par exemple du normalul nañ bàyyi yii parce que yii après mooy dajaloo di cumuler wu après indi après ay ay émeute et cetera euh, tey état bi lu mu soxla rek wutal ko force de l'ordre lu mu soxlaal boppam. Ah. wutal ko force de l'ordre ju doy dégg nga kon nag. droit la kon excuse mënul lekk insuffisant de de d'éléments de sécurité. Euh, mënu ko nekk mënu ko nekk euh, ñaareel ba damay ragal damay ragal damay ragal bon comme ni ma la ko waxee xoola pur wala Guédiawaye ni mu mel ci nit ak yooyu. ak Kër Massar aussi. kon les aussi peuvent être responsables Kër Massar tamit def nañ seen kii euh, dem seen yoon. tranquille et pendant ce temps ñi ne ci pouvoir bi aussi ñu ngi def chaque jour seen meeting ah. waaw te kenn terewul leen. kenn terewul leen te kenn waxul insuffisance de. de force de d' élément de sécurité. d' élément ak kenn waxul tam damay ragal ak. donc moo tax ma ne nañ def attention <clears throat> bu ñàkk tëddee njaaxanaay. Uh-huh. bu demee ba fés ba flagrant rek mooy indi après ay fitna yoo xam ne nag nga bëgg mu fay. te du fay parce que jàmm dafa ànd ak justice dafa ànd ak euh, tëddee ñaaxanaay donc euh, def sa meeting droit la euh, kon dañ ko war a encadrer par des force de l'ordre et cetera kon état bi foofu lañ koy gën a xaar plutôt que di tere ay manifestation ay meeting ak ay manifestation ok euh, déjà dañuy dem ci li nga xamante ni moom mooy euh, les dérives sur les réseaux sociaux euh, c'est une yu ñu war a traiter euh, gis nañu fan yu bëri fan yu yàggul dara ay kilifa diine ñooy génn di ñaawlu comportement yenn sénégalais yi ak yenn attitude yi nga xamante dañ koy faral di dégg ñi sekkiti ay kàddu ñu ñaaw di saaga ay kilifa diine alors ñu jàpp ne quand même c'est c'est c'est des ñu jàpp ne c'est des propos yoo xamante ni waroon nañ ko séntu fépp ba mu des Sénégal waaw parce que Sénégal quand seeni seen i kilifa leen a jox cër ak wàccuwaay bu ama am euh, solo euh, noonu it ci réew yu bari aussi am na fa ñoo xam ni euh, wàccuwaay ba ñu am ku teg seen der lu ñaaw et cetera yoon daan la. donc Sénégal tamit kilifa diine yi dañ leen a fonk lool bu ko defee war nañ leen jox worma bu baax a baax. léegi nag euh, mu mel ne aussi euh, réseaux sociaux yi ni mu demee euh, kan moo mën a fexe ba kenn du wax lu ñaaw benn kilifa wala beneen nit wala sax sa nawle wala koo bokk loolu parti loolu c'est impossible parce que nit koo xam ne fu la neex nga toog bind wala def sa YouTube wala sa mu nangam nangam loolu kenn mënu ki dara kon li gën a am solo mooy bon en tout cas ñi ñu mën a jàpp au moins te ñu def ko ñu jàppaleen bu ngeen mën a identifier toppaleen ñu def ko su fekkee experts yi ñi nga xam ni peut-être ñooñu ngay laaj ñoo gën a xam affaire cybercriminalité cybercriminalité ah. ñoom peut-être boo leen laajee ñu wax la yenn yoon lañ mën a jaar pour néewal doole lu mel noonu mais alaa kulli xaal yaakaaruma ni am na recette magique parce que lenn li mën a am mooy bu bu nit ki defee ba pare ñu identifier ko jàpp ko mais avant muy def nag waaw avant muy def mënoo xam ne day def c'est des actes ouais kon nag bu aussi bu ñu infantiliser Sénégalais tamit c'est-à-dire que genre euh, war nañ toll foo xam ni kenn du fi mës a dégg kenn wax benn kilifa diine lu ñaaw parce que ka koy def bu ko xasee ba def ba pare lañ ko mën a jàpp ko kon nañu gën a insister ci sensibilisation bi ah euh, ak tamit dénoncer ñi nga xam ni dañ koy def am na fi ay kuréel yoo xam ni ci société civile bi aussi euh, ministère am na ay protection des données personnelles am na cybercriminalité yooyu yëpp noonu action man gisaguma ko président Macky Sall li muy wax ni affaire réseaux sociaux yi ça fait je crois cinq ans ma koy dégg mu waxoon dañu projet de régulation des réseaux sociaux mais finalement ba tey ba tey parce que quand même xam naa aussi yombul mais en même temps gisuma ba tey ñu teg lu leer daal ne léegi-léegi